journaliste yi salaamaaleykum askanu Sénégal maa ngi fekk fii honorable Serigne Saliou Mame Birame maa ngi ko gis ci ginnaaw Saa euh, ñi nga xam ne itam euh, dégg naa ñu ngi ci biir plateforme bi Salma ni nga ko waxee noonu képp la euh, au-delà nekk ay journaliste ay citoyen ngeen avant tout te foog naa ni mbir boo koy def li jiitu ci bépp stratégie mooy xalaat te yéen ci xalaat boobu ci ngeen nekk depuis des années éveil des consciences maam Biram dafa wax léegi suñu wax amul solo ak ah, kay parce que seen wax am solo moo tax sénégalais yu bare di leen bàyyi xel Serigne Saliou mi vendredi bu bare am na ñoo xam ne dinañ ko seetaan ci ay kuréel peut-être dinañ fa dégg lu leen neexul mais moom jëmmam ak kàddoom day tax ba ñu taxaw di teewlu kàddu nag fi ñu toll ci euh, àdduna bu sax ci Sénégal kese mais fi ñu toll ci àdduna kàddu dafa am solo parce que kaddu dafay defar mais day yàq boo tolloo nekk ci jamono ji nekk ci pénc di ci euh, euh, wax sa xalaat te yàlla dimbale itam ngay def wax xalaat bu sell yàlla dimbale la itam lépp li ngay wax waxoo ko ngir parloo waxoo ko ngir sa jëmmi bopp mais danga ko wax ngir defar kon kooku yow da nga am dayoo ak matuwaay bu mat ci réew moom responsabilité bi ngeen jël nag mooy xam ne euh, euh, ñun malgré que ñu nekk ay acteur politiques mais peut-être que ràññee ngeen ni ci sunu ay position itam ay position de principe la ak position intérêt général moom la ñuy défendre moo tax ngeen xalaat ni war nañu mën a ànd war nañu mën a sóobandoog lii dañ leen ci encouragé dañ leen ci encouragé te dafay wane itam ni réew mi politiciens yi kese mënuñu ko defar au contraire lu yàqu lu bari ci seen loxo lay yàqoo parce que euh, euh, groupe lañu boo xam ni seen ay intérêt seen ay soxla seen ay euh, ñoñ moom la ñuy avancer malgré que nag ñi gën ci ñoom cité bi ak askan wi la ñuy liggéeyal mais tey situation bi am te président Macky Sall indi fi Sénégal dafa nekk situation boo xamante ne dépassé na acteur politique yi loolu moo tax bi mu jógee ñi ci njëkk a jóg mooy société civile bi ñi ci njëkk a jóg mooy ñu nga xam ne sax kenn mësu leen dégg ñu ñu ŋàññi président Macky Sall ñoo taxawal ay front ñooñu nag bi ñu taxawalee front yi xëy na yéen nii ngeen defee euh, euh, am na ñu ko ci defee mais am na ñu ko ci defeewul mooy tëju ci seen biir te ce n'est pas le moment de se fermer parce que dañu jëm ci combat boo xam ne dafa dépasser euh, sunu ay bëgg-bëgg ak sunu ay appartenance parce que il s'agit di Sénégal donc kenn ku nekk da nga war a xam da war a ubbi sa loxo yaatal jox loxo sa moroom ñu avancer parce que tey su fekkoonte ne plateforme yi jiitu ubbi taxaw dès les premières heures de cette déclaration mate woon nañu lu ñu doon kon xëy na seen plateforme bi du juddu da ngeen di dem greffé ci plateforme yooyu donc dafa baax toujours ngeen di taxawal lu bees mais li bees di itam damay wax rek bu ñu ko taxawalee bu ñu def ni ñeneen ñi def parce que bu ñu ne dañuy am plan d'action dañuy avancer dañuy dem nañu àndandoo ak ñëpp ñu jéem a avancer parce que loolu itam mooy sunu nattu mooy sunu ay défaut te ci défaut yooyu ci le président Macky Sall di làqatu ba tey euh, combat bi nga xam ne mënta mënta mënta nax saay mënta nax saay mais am na ñoo xamante ne ñu ngi bëgg a rey combat bi de l'intérieur te loolu dafa war a arrêter parce que quand on se bat nga boyal sa ànd ba mu tàng jër ay nit jël seen ay pot ndox di ko ci këpp loolu dafa war a arrêté te gëm naa ni ñuy toog ci taab bi kenn ci yéen du sotti ci ci ci ci ànd bi euh, euh, euh, potu ndox parce que nag ànd bi pour jaaru la du pour lakk daay bi ki lakk daay bi xam nañ ko mooy ki nga xamante ne moo fekk suñu constitution xotti ko senegale yëpp jóg seen xol futtu mais bu amee fukki organisation ñi ne la jàddal droite ki ne la jàddal gauche ki ne la noonu nañ taxaw ki ne la noonu nañ def marche arrière le peuple est perdu fii gëm naa ne ñi fi toog kenn ci yéen du du du sànq askan wi du ko réeral dañuy avancer parce que nag il s'agit d'avancer il s'agit de ne pas accepter il s'agit de ne pas se coucher li fi am ni yëpp coow li divers diversion yi c'est des méthodes yu nga xam ne xam nañ ko xamaat président Macky Sall xam na ko moom sax dafa gëm ni suñu wax ji du du weesu une semaine dañ koy coow nii rek journaliste yi taal seen ay micro ku ne wax ba géex après moom mu déroulé day ñëw sax indi ay diversion teg ay mbir naan la amnistie naan la naan la dialogue ku nekk di xataraayu di samante ay dëm lu fi am président Macky Sall gii sax nee na moo daaneel téléphone am mais gëm naa ni weesu na lool lii xew ci Sénégal lépp moom la ak bëggam nguur bëggam nguur moo tax mu violé la constitution def loo assemblée nationale du dul yoon nañu ñëwaat ci loolu ay waxam ku muy génnee kaso ku mu dul génne kaso ñu ne ci kaso bi dama leen di laaj est-ce que fa yóbbu seen bopp bi àdduna di sosu ba léegi kan ngeen mës gis ku tëj boppam kaso kan ngeen mës a gis kuy tijji boppam kaso kaso am ay millions dugalu la fa am ay milliards génnewu la fa ku fa dugg dañ la faa dugal ku fa génn dañ laa génne kon moom moo yor tëggalu guyam ñun suñu yoon nekku ci ñu mu tëjoon bu leen di génnee moom la ñu ñu ñu rey est-ce que nit mës a gis nit dóor boppam balu fetal di dee ñu ñu dóor bal depuis deux 2021 ak léegi ku leen dóor bal est que ñoo rey seen bopp kon buy lijjanti moom nu mu koy enquêter ak nu mu koy làqatee loolu moom la ba tey du sunu débat suñu débat mooy sunu réew mi dafa war a am élection il n'a pas le droit de rester à la tête de ce pays dafa war a dem fexe na ba jaar assemblée nationale def na li muy def ñu ngi déglu conseil constitutionnel am yaakaar ni duñu weddi seen bopp ndaxte ñoom lañu ñu accuser ni dañ leen ger kon bu ñu nangoo ni dañuy incompétent wala dañuy taxaw ça veut dire que nangu nañu ni ñoom ger boobu ñuy wax am na te justice nag amatul ci réew mi parce que conseil constitutionnel bu nangoo ni moom compétence yi ko askan wi jox amatu ko kon fii ku fi policier jàpp wala tribunal tëj la dangaa amuti mbokk wala dangaa ñàkk sens loolu nag foofu la ñu toll mooy taxaw jàmmaar la moom jël suñu responsabilité ah kay am ngeen ci responsabilité parce que da ngeen di yee koo yee nag ba mu yeew jóg taxaw maam mbiram sëñ Saliou ak Cheikh Baara mu baax mi nga xam ne jeudi mu ne Sénégalais yëpp dañuy taxaw di ko déglu ah Babacar ak Cheikh Baara dama foogoon ni moo ñëw xaftaan bi laa gis yéen ñii ñëpp nga xam ne kenn ku nekk ci yéen da ngeen di yor seen kàddu Coro Mandela mi ci ginnaaw dama koo xas ba yee ba mu jóg la ngay moom ci yow la des nit nag boo ñëwee ba yekk jóg ci lan ne ko jógal da ko naan jullil wala jógal wala taxawal wala defal li wala defal li mais nit ki doo ko yee éveillé ko mu jóg taxaw jàkkaarloog yow nga yee ko ne ko waa léegi demal boole naa la ak diw loolu mooy mooy seen responsabilité bi ngeen jël ne gannaaw dañoo am responsabilité ci éveiller les consciences maintenant dañu bëgg ne sénégalais nañ jaar nii man nag li ma indi du jiite du du du du cër li ma indi mooy ngeen ne ma nañu jaar nii ndax foog naa ni man ak euh, ñi ma àndal ak ñu mel ne honorable gi ay soldats lañ def suñu bopp ci réew mi dañu jàpp ne euh, gannaaw ki jiite réew mi dem na ba yéene wuñu réew mi bu ko jox ay soldaar organiser ñun nag ñu war a nekk les vrais soldats de ce de ce taxaw nag jàmmaarloo ak moom taxaw nag am fulla taxaw nag am fayda mu delloo ñu lu ñu moom ñëpp xam nañu le cinq jàpp na mu mënu fee am mais nag on exige que avant le 2 mu organiser ay élection ci suñu taxawaay képp nag. moom lay mat ku fi nangu nag ñu divertir la dugal la ci yeneen débat yoo xam ni concerné wu la ba sa mobilisation nga wàññi ko yow yow yaa perte yow yaa euh, euh, naxasaay parce que moom li mu bëgg mu ngi koy dérouler te nag je pense que Sénégal un pays démocratique Sénégal pays boo xamante ni président Macky Sall liñ ko defalul ci àdduna te dernièrement li Souleymane Jules jóg wax kese war a war tax sénégalais yi jóg fekk ko euh, Mermoz moom président Macky ndaxte moom dafa ni woon moom du bouger ci réew mi xanaa ma waxul loolu waxul ni moom bu toog bu paree fii lay toog kenn waxloo ko moo ko wax waaye dégg naa takk na ay bagaasam bu tuxu Maroc kenn weddiwu ko gannaaw ba ko waa Paris ne dañ lay jox pour liggéey mu nangu waaye léegi yow di nga tuxu Maroc mbaa nga dem wuti liggéey Paris nga bëgg suñu réew mi nga lakk ko jaxase ko rajaxe ko après bàyyil ñu ko mu nekk dóom kan mooy nangu loolu buñ ko nangoo ci ñun la maa ngi xaar plan d'action bi yëgaguma ko lu ngeen ci wax maa ngi ci yeneen plan d'action yi may dégg ñu koy wax ci àjjuma j'espère que nañ ko ci boole parce que war nañu am fulla gu toll ni gannaaw ñëpp bokkuñu soxla mais ñëpp ñoo bokk soxlay diine Sénégal àjjuma bu jot nañu dañuy dem julli ji bu ñu defee àjjuma bu nit ñuy julli ji ba pare ñu ànd ak ñu julli ji woon dox farata ji parce que li jihaat la bu ñu ko mënta def bis bu yàlla sàkk sax nañ ko def bis boobu parce que nag fii amul lu fi waay war a taxati taxawati di calculer amatul parce que de pays lalatuwul ci légalité lalatuwul ci constitution lalatuwul ci respect de nos ni de nos képp organisation nag j'espère que du ngeen ci bokk ak duñ ci bokk ñun buy yëg wax programme naan day tàggoo xeexoo dama ni ku ñu tooñ doo tàggoo booy fayu nit mënu naa ne képp mbéj nga taxaw naan ko est-ce que mën naa fayu taxaw di déposer ay demande d' autorisation di xaar loolu xeexu tàppet la président Macky Sall ba mu ñuy toon tàgguwuñu kon bis bu ñu yàlla sàkk bu ñu xëyee dañoo war a fayu bu ngoonee ñu fayu bu gannaaw subaa ñu fayu te nag li may wax rek moo ci ne gis nga ñun ñu jël suñu responsabilité parce que xale yi jël nañ seen responsabilité te xale yi li leen di protéger du bàyyi leen ci mbedd mi ñun ñu nekk ci ay plateforme di waxtaan li leen di protéger moo ñu jiital moo ñu ne ci seen kanam parce que nag foog naa ni ñoom duñ ñu chargé mais bu ñu bàyyee xale yi ñuy xeex ci ay ruq di def ay gériya lii am moom mooy am te foofu lay tëjee mooy di leen jaale di jaale bakkan yi fi rot di ko métitlu di wax nag bu kenn accepté jël bakkan yooyu di ko def un pour le combat kenn faatu leen keneen ku dul le régime du président Macky Sall dama ni fii plus de dix mille personnes dee nañ fi ci géej gi kenn jooyu leen xale yooyu ce de des martyrs amul réew mu tabaxu te ay martir amul ndax munoon naa nekk man mënoon naa nekk honorable bu doon suñu sago du am hmm. mais c'est pas parce que dafa am te dañu war a ne comme am na du ñu génnaat xeex loolu d'accorduma ci on doit se battre pour que mu bañati am mu bañati am mooy ñu nekk un bloc mooy bu ñuy génn ñu génnandoo mooy bu ñu dox ñu doxandoo mooy bu ñuy ànd ñu àndandoo mooy ñu rester ensemble bañ a bàyyi benn xale di dugg ci ay koñ ñu la fay fekk di la dóor bal parce que loolu yëpp bu ñu koy def c'est parce que on la parce que nag ñu dem ñi fi faatu damay fàttali ñëpp xale bi nekkoon ci fourgonnette bi ci Ziguinchor ñu dóor ko bal ñu naan léegi mu faatu mu naan mais dama ni ana président Ousmane Sonko waxal leen ma président Ousmane Sonko kooku tey foog ngeen ni bu ñu eggee ba fii ci xeex bi ñu ne ko ña nga doon xeex de arrêté nañu parce que dañoo ragal ñeneen dee kon moom deewam perte kon moom lu tax mu dee kooku man dama ko gën wala sama doom daf ko gën ñi ñu jiitu gënuñu leen te yàgg-yàgg dañ leen di fekki motif bi nag la ñuy laaj kan la ndax yàlla moo ñuy fekk suñu nelaw wala ndax dañuy fekk ñu nekk ci yoonu liggéeyal Sénégal nañu gën a takk suñu ay fit man daal sama xel dal na ba ma fekkee sama ñaari lingeer yi jigéen ñi ndax terrain bi maa ngi ciy fekk ay jigéen xam naa ne ay jàmbaar lañu te xam naa ni yeneen jigéen nañ gën a dinañ gën a génn te di leen wax ne leen na jigéen ñëpp takku nag ndax fii amatul affaire jigéen amatul affaire góor lu ngeen woote rek ñun ñu ngi ci loolu du ngeen woote ñun ñu ngi ci loolu di leen encouragé di leen ñaanal di wax ne nag nii euh, kese la mais contrairement ak yeneen acteurs yi mooy au lieu que ñu jàpp ne rek dañuy def point de presse avancé dama bëgg nag front bi ñëpp dugal ci seen loxo fekk si leen si parce que mate ngeen ko ndaxte mosu leen faillir ci seen taxawaay heure bu ngeen Sénégal soxlaa taxaw ngeen wax kon na sénégalais am confiance parce que confiance mooy tax nag nga ñëw ci ginnaaw nit xeex. am na ñu bare seen woote xeex soo gisee mu sooxee nit ñu dañ naan kii wóoluwuma ko mais foog naa fii ñii fi toog kenn ku nekk wóolu ngeen ko te xam ngeen ni bu leen woowee ci xeex du dellu ginnaaw seen saaliw nag ñu ngi ñaan yàlla xeex bi ñu eggali ko ñun ñëpp salma ay takk bopp suñu bopp ci ay assemblée weesu nañ ko askan wi mu ngi ci mbedd mi mais ñun lay xaar ñëpp lay xaar nag ndax kenn du leaderu kenn fii ay leader amatu fi ay citoyen ñoo fi nekk ay ay ay sénégalais ñoo fi nekk tout moom monde doon donne la ñu jéem a avancé maa ngi koy yemale maa ngi koy yemale foofu di jaajëfal ñëpp jërëjëf